il faut que nous massifions, il faut que nous ayons des clubs yu il faut que nous ayons des régions, il faut que les régions aient ay club parce que région régions bëri da ngay am ñaari club des club mais il faut que nous ayons des ñu formation parce que si nous ay des entraîneurs, nous ku entraîner athlètes donc nous avons des entraîneurs, ay entraîneur def formation sur nekk vraiment base la formation def massification am athlètes yu bari am compétition parce que athlète soo formé athlète il faut ma am compétition soo amee entraîneur il faut entraîneur bi tamit mën a évaluer boppam soo amee officiel tamit officiel il faut ñuy officier donc ñu def ay compétition su compétition yi passé il faut ñu am élite boo xam ne ne dinañu permettre ah suñu demee bitim réew ah ñooñ dinañu mën a yëkkati ah, drapeau Sénégal ci kaw donc yooyu yëpp ñu waxtaan ci daan ne il faut ñu am ay moyens tamit loolu yëpp dinañu am ay moyens parce que état bi dinañuy jàppale mais yeneen moyens dinañ ko wut ah, ay sponsor ak yooyu yëpp yooyu yëpp am fi parce que yàggoon nañ ko fi def depuis deux ans amna ñoo xamne ñi ñu ngi ñuy jàppale ñu nek si ñu né tamit il faut ñu def ben soirée de gala donc soirée de gala bi suñu défé bon ñu ñi ñi gagné yëkëti vraiment albium ci kaw ñu jox leen ay reconnaissance yooyu tamit wax nañ ko ci tamit wax nañu tamit nañu vraiment nañ dem ci région yi waxtaan ak club yi hein waxtaan ak école yi waxtaan ak institut de sport yi waxtaan ak euh, l'ASFA waxtaan ak la police vraiment nous devons parce que suñu licenciés mais yoyep waxtan nañ ba impulser sur nos fédérations